asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp suñu site bi di 94 wolof Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen siyaar wax rek ngeen way di ànd ak ñun voilà xam naa ne nag euh, accident accident yi bari na lool oto yi li ñuy daw dafa bari oto yu ndaw yeeg oto yu mag yee yem maanaam daal fi toll nii moom voilà war nañ ko def ci zone yëpp El Malick Ndiaye mu yor wàllu dem beeg dikk bi xam naa ne mi ngi ciy liggéey liggéey bu rëy ak équipe am waaye daal jot na sëkk moom fi mu toll nii voilà parce que nit ñi li ñuy daw dafa bari moo tax soog yi di bari voilà ndax xam nga bari na ci ñoo xam ne bo nu yabee ay nit dafay mel ne rek ñoom ay xar lañ yab wala te yaakaar naa boo yabee ay xar sax da nga daw li nga xam ne nii. moom la tali bi soxla moom la oto bi laaj oto bi boo ko bëggee yan loo xam ne attunu ko daanaka mën naa ne fa nga mujjee ak moom moom mooy ab sob wala boo nekkee ci tali bi mel ni yow képp kott yaa moom tali bi fa ngay mujjee moom mooy dal ci loo xam ne ni wala du la gënal te da ngay lor sa bopp loraale ñi nekk ci biir oto bi kan lan moo tee ñooy daw ndànk borom xam-xam yi dañuy wax ne daw ndànk dal ndànk sëñ Fallou daan na ko wax mu mag ma boo dawee ndànk dal ndànk voilà ndax xam nga loolu nekk na li nga xam ne dina la mën a dimbali ci lu bari danga nga da nga xam eh, ni ngay doxalee ci kaw tali bi mais tali bi daf cee am ñu fi nekk ñoo xam dañoo jàpp ni rek tali bi moom ñoo ko moom lu leen neex lañ ciy def moo tax nag El Malick Ndiaye moom fi mu toll nii ay sanction yu diis war nga koo yëkkati teg ko ci sa force wala ñenn ci sa force parce que wax dëgg yàlla de li ñuy dawal jaaduwul. dañuy rey nit ñi rek voilà boo demee ci réewu développement yi tey ji c'est rare ngay gis ab ab ab ab accident c'est rare maanaam maanaam dafay raar pour nga gis ab soog maanaam pour transport yi nii nga gis ci ab soog dafay rare dafay dafay ji loolu yëpp na c'est parce que lan la mooy dañoo jël wàllum transport bi euh, doxalee ko ni nga xam ne nii Euh, dafay gën ci ñëpp wala safoor si dañuy entretien seeni oto ba la ñuy départ wala dañuy escale wala yu ci yooyu yëpp day am mais fii nag moom da ngay gis ni entretien bi war dëgg dëgg dëgg dëgg ci oto yi duñ ko def wala ndax bu yàggul a gis nañ benn soog boo xam ne nii premier ministre bi ci la yam muy Ousmane Sonko mais ku nekk xam ne ni ma ngay wax ni mbirum pënoo tax oto boobu toj ndax pëno yooyu noonu boo ko xoolee da ngay xam ne pëno yi moo toj te pëno yi biñ tojee oto bi daa tilbite nga xam ne loolu tey ji da ci tomb wax ko chauffeur bi